Thank you. ak dàll yi bëgg a dugg town poos bi diisul nu ma mën a def foog ma dugg town rek la last premier round koj kaar bi ci tali bi sëfër bi dóor ma code far apprenti bi fëgg wàcce ma talk Versailles fekk fi Mary jaay jën kaar bi na tekk na ñëpp ne selaw doo dégg lu dul riiru half time muy like paas ku yohol mu taxaw kaas xamee wul sax moroomu ndayam sëfër bi waaye di amp bi xamadi dañu reew a reew ba dof dañuy dund ci tali bi

mission bi mooy lan di di xaal di mbay nga régleel ma leen bañ ne cocc est-ce que may comprendre booy bu tuuti nga da am nga fit quoi parce que ku amul fit man di toog sama makaan bi yaa ngi comprendre loolu laa bëgg nga régleel ma ko si nii dama bëgg nga teel ma leen xëccal ma leen indil ma leen après mission bi laa fay la lu baax est-ce que may dégg loolu laa doon doyee ci makaan bi yaa sama copain bi quoi. yow juumoo benn yoon man réew na sadig am na am naa fit pour xaale mbay loolu toon jugul dalee lay may jàmm ba faw aha boo tëddee nelawal ba sa ginnaaw bandal pour loolu rek dama koy gérer nii yow tënket pour ragal loolu en plus kii sama copain la si nga ko jantal maa ko récupéré pour mu ñëw ci man léegi da ngeen di ànd ensemble quoi groupe Copsior yi ñu def liggéey bu baax lii laa bëggoon ñu def ko. mais sax yow looy def yow. Eh, man moom damay suul bukki suulu bukki ah. damay suul léegi dañuy sulli bukki bi mu taxaw da ñëw fii ñu liggéey ensemble. loolu laa gis. parce que fit baa ngi ci yow quoi. yasaar. baabel ah, yow bul am dara looy tiit. yasaar yow ku la xamul dégg na ada boo boo eh, tëddal nga nelaw baax. dañuy jubóole dañuy waxtaan ba jubóo baabel il faut xam nga bi compliqué na daf ok amul ragal ah. mais moom sa réew la ñu wax. kontaan ci yow ah. da ngay ci waaw yi loolu la quoi. parce yi des fois mooy loolu.

ah kii mooy Pape le grand coxeur. waaw man moom mooy président man maa toppati moom. <laughs> sama sama sama la nag quoi. ah sa booy bi de maa ngi wax mu di ma menacé naa ah, man wax ndànk. mais coow jugul quoi xam naa dañ la xamul menacé dama la nga wax ndànk. oui ma oui ma ngir ah. yàlla rek. da sama mbagga ndànk rek ndànk rek. Fall léegi mu nga soxla woon mhm. fan yii yëpp maa ngi la bëggoon. bütün lettre ministre transport est-ce qu'il yaa ngi comprendre. non non, ma fi indi de. instant yii sonn nañ trop. mu ngi woon nii. ak a moo gaaw. waaye. waaw dama non woon du ma ko bindal tànk tooguñu. xam nga luy problème bi yàlla dafa def groupe coxeur. yow yaa ci gën a jàng. Mhm. waaw waaw waaw waaw waaw loolu moom yàlla def moom. kon ñun jànguñu xamuñu dara. na ñëpp nangu rek. nangu nañ. sama nga xam naa dama koy héberger nag xanaa ministre dina mën a ah. lire héberger waaw moom dina comprendre léegi léegi dañuy def min non da ngay njëkk a bind ministre de transport waaw ah, bind ko ci kaw wax après kay moom a jaar rek waaw bismillah les grands Sénégal ah? de demander de audience baax na. ah loolu gars yi baax na. non non non bàyyi ko rek. ah kañ loolu moom bàyyi waaw bindal baax na bindal. la coxeur du Sénégal. waaw la. da ngay def le. le def a. waaw. ko ko. di. sër. sër nu mu koy bindee. ah. kooku. comme sœur. ay lii sóor ah ah comme sœur moo ah, baax na. on demande pas. léegi. on demande. waaw. de la droit. droit. d'Italie. wala ah ba tey baax na dafa yow noo ko de Tali. de Tali la essentiel na

accepté domino. waaw. non loolu. accepté leen eh, waaw waaye noonu amul ci français. ah si. ah kon bindal baax na. accepté des domino. parce que ñu lay coxeur ren. waaw la si oto la ñuy liggéey na domino. kon bindal domino baax na. accepté des domino. kon baax na bindal. accepté. waaw léegi da ngay jox gars yi après ñu acteur waaw waaw dëgg je vous salue waaw waaw waaw c'est bon loo wax oh. baax na signal fii waaw xaaral ñu lii moo gën quoi parce que instant yi sonn nañ signal sonn nañ trop signal fii ngay signé fii non de dafa daal fii la ki da xamoo fi ngay signé non si xam naa fi jaay jaa boo paree ma ma validé comme que voilà bu ma signé le président monsieur le président mooy signé ah. waaw validé bi dem ok. léegi mu ngi nii man dinaa téye affaire bi yóbbu nu mu gën a gaawal. waaw kontaan nañ ci yow. am waaw bu ñu paree si loolu normal. waaw. mbay ak xaalis. non ñooñu moom. ñooñu foo ñu taxas leen si garage. ñooñu foog ñu moom laa doon wax sama parce que dañuy yàq Sénégal dañuy yàq transport car rapide. waaw parce que lu ko neex lay def ci car rapide. Sénégalais yi ñëpp a ngi koy neex. dañ ci ci war a wax ah. dañ ciy jóg dañuy paa bu dugg si oto bi ñu toroxal. dëgg la c'est vrai ku góor ku dugg bi lay la surtout yoon la ci transport Sénégal. naqa bi. waaye ñoom jigéen ñi leen gën a respecté góor ñi. il est loolu nag mooy dañ. mu ñu ah. moomuñu ñu de. waaw mbay moomuñu. waaw man damay ñaan rek lii lii nii sot non lii boo tëddee nelaw dafay dem. respecté wuñu kenn. jigéen ñi. rek ka leen respecté. Ah, Babel moomuñu ñu de. garage bi duñ ko bokkatee ñoom parce que dañ xamadi bu ñuy bokk ak garage bi dañuy bokk bi ñay yaru ñu respecté mag. ana yeneen safar yi. Mbaye gars yi yow loo def nii gars yi. yow laay yow da nga am sens yow nga am laaj. yow da nga am sens yow da nga am sens bay bay mën ngay dóor dëmb yi man nekkuma si de leer naa la taxawal taxawal dëmb yi nekkuma si dëmb yi nekkuma si taxawal maa faale say mbëg taxawal maa faale say mbëg taxawal taxaw na taxawal taxaw na le fente taxawal taxaw na maa faale say mbëg yow oh. maa faale yow Dans ce sens, par là. benn yoon paaka laa lay jam affaire yi nekkuma ci. amul problème toogal ñu gérer loolu loolu du problème fii boo ko gaañ boo ko laalee fii da nga koy gaañ boo ko mbëkkee da nga koy gaañ bu mbëkk. ministre bi dina yëg lii yëpp sa jooy yëpp di ngay xaaral gars yi amul problème. xam nga parce que Sénégal yëpp xam nañ la si kooku c'est quoi. da nga bëgg ñu am lu baax. waaw gars di bu bu bu tiit bu rek la. boo ko mbëkkee fii day gaañ. boo ko mbëkkee fii day gaañ wax leen ak moom Dollar am Rawa Adam. Ya Khalid. Lu daf jarar waye, lu daf jarar, Yang ini pas kina rek. Pasal ah. ha, ah. kan pasal, pasal. Grand ñol pass. Jox naa la. Loolu teew de ñol pass. sa waay joxoo waaye ñëwal paas nga naa ma jox naa kii kii loolu waaye da nga ma jox dërëm ñëwal paas waay emprunté kii jox na la cent franc waaye man cent franc la ma jox jox na la cent franc yaa ma ko jox yow man la jox cent franc ma jox la ko grand ñëwal paas boo gën sa yooyu ngay def seen bàyyi seen caaxaan yaa war a bàyyi li ngay def caaxaan ko de mooy joxu la cent franc waaye ban jox kii joxuma cent franc la waaye kii joxuma dërëm nga naa ma jox na la fii balaa ngay wàcc ma fay sama moyen de loolu leer laa la wax na dugg loolu sa bopp ni ngeen def boo duggee di jéem a yaru yaru fekk nañ ni sàcc booy mais fii fii loolu kaar bi fii ku fi dugg da ngay fay ci sama kaar na sa xel dal bu fayu dinaa ko duma duma duma ba mu nee fare man naa ko bii fi yéeg di nga fay. yow lu sa xol sedd rek. yenn yëpp yebaate la. non dina ma fay yow bàyyi ko man rek. wala am nga ñàkk ak fay da nag ba laa fay la. man su ma wàccee ma fay. yow man ma yeb façon kii bu nekk ngaan maa ngi fay naa li sa muy ñëw waaw sa genre gi chaque jour ma yeb si 10 nii ngeen def boo duggee toog fenêtre ba di jéem a saay di xool tali bi nii nii fekk paas yu ngeen bëgg a lewal fii fii noonu fii de man sama muy kenn du ko lewalee si li ma lay xamal si lu tuuti boo ma fayul boo wàccee naa def lu métti. rawat devas Marcela Yau ina saman mai da Yan saman mai lawa man duma ragal kwal saman mai da mai job sin ne wala sin ne. Yan sama kalis. Wai saman mai da man duma ragal da. Yan sama kalis da mai job. Negal ma wacci nokku ko ba mu fu xaaral ma wacci. Barki Serigne Mor bu daaral fa na ma xaar. Sama waay sama doo doo réglé ah ah mënoo réglé ah. man ko nokk ba mu duul laa la wax mbay bu fayul nga nokk ba mu duul ku fayul ma nokk ko man mbay. maa ngi maa ngi indi. waa sëñ bi kii mooy apprenti bi loo ciy yëpp ci marchepied bi ci kaw. Eh. la moo tax nga koy yëpp ci kaw moom mooy apprenti bi yow lañu war a yëpp ci kaw. la yow da nga deg man ay natt man mi ñep deg nañ la boy señ bi man no xantew ma ya doon waxe ay affaire nox ba mu dur sama galaji ji yaa wax wala waxoo bëggul histoire bon yow ya wax wala waxo ñaan ñi non ci kanam ñoo doon wax señ bi man duma togn tooñ yow ñu yow yaa doon dawal yow yaay support bi wala dawal maay séeru man bi yaay sofóor bi yaay support on bi yaay yor oto bi wala yoroo ko am na koy gontu man maay séeru man may xey boy day dama nokh wala ma nokh sëñ bi man noqante ma. xanaa bëggoo jàmm. yaay soit sûr laa wax. léegi noqama. ah noqama. lan la jox sa paas moo gën nga may noqal lan la jox sa paas. non nee na ana Mbaye da koo wàccee ci suuf mbay Mbaye. kii kan la. ah kii kan la. mbay jox ko weccetam. booy aw fi weccet. sëñ boo ma boo ma rëndee tabaski ji weesu na baa boo ma rëndee baa doo tëdd 100 li ngay xëcc nii buumi jaam yi dog na yaa ngi may rey yaa ngi may gaañ booy defal ndànk yaa ngi may gaañ li nga doon wax si biir waxaat ko laax li nga doon wax bi nga nekk si wa oto bi waxaat ko barki Serigne Moustapha Dia dama ko waatee caaxaan waxuma woon dara waxoo dara wóor na eh, mboor eh, wóor na mboor fii lu mu na ah. mboor mbéy nga ma dara lan la wax lan nga doon wax moom moo ne daf lay noq sëñ bi man maay tere ko noqaate wala da nga ma bëgg a noqa kan noo xal sa emprunté bi noo xal yow tooñ bàyyi di tooñ bàyyi di tooñ bàyyi di tooñ li moo mën a am jàmm dama jox de am dawal kuy dawal oto bi sëñ bi xanaa bëggoo jàmm man dawal ma nga ne ma yaay dawal yow léegi dañ laa tooñ. waaw noq naa mbay. waaw mënuma laa noq. waaw léegi demal nga bàyyi ñoog suñu wote nag. dem mais da nga dugg ci oto bi. xanaa Sénégal amul ab àtte. da dugg ci oto bi wala doo dugg ci oto bi. sëñ ma kontaan. dama ah, mbay mbay ñu dem. bu affaire lay jaay naa ko kii naa ko boole Modou Lo. Modou fajar tak dàll yi bëgg a dugg town post bi mana nu Fuck def foog ma premier round Kuat kar bi talibi, tali bi sëfër ma far Apran bi fëgg wachi, ma versai. toog Versailles fekk fi Mary attack kar bina tek ni tekk ni ñëpp ne selaw doo dégg lu ngelaw muy like ku yohol mu taxaw kas, xamee wul sax moroomu ndayam sëfër bi waaye di amp bi xamadi dañu reew wa ba dof dunu ci tali